donc Mounass ñu bàyyi la ak sa invité nga waxtaanee le temps que je l'aide à indi bagage. voilà voilà surtout donc surtout. Euh, bagage mën ngeen tàmbali waxtaan sama mën kay bi bëgg naa nga décorer ma table bi macha allah. avec l'aide de Salma Ibrahima ñu suñu maneen rek euh, dootuñu ko laajte kii mooy Abdel Cuuraay alliance Curu Cara. Euh, xale comédienne baa ngi neen borom cuuraay yi nga xamante ne 122 cuuraay yu nettali. Uh-huh. Euh, di conférence di waxtaan waxtaanu guddi cuuraay yi nga xamante ni foo ko taal ci guddi dañuy cuqanaal ñuy reetaan kër gi di bég xol yi di féex. boo ne Abdel rek ci wàllu cuuraay ci wàllu joge kenn dootu ko laajte àdduna wërngal këpp xam nañ ko Abdal maa ngi lay dalal di am mbégte ak contentement nga ñëwaat fii ci euh, petit déj. waaw maa ngi lay Arsenal nga am waaw di wax daal tey moom fii du yomb. Mhm. fii tey moom dana mel ne talaatay ndeer barke yonent bi lii laa wax. non bu weeree yomb ñu léegi. bàyyi ko voilà donc mën nañ tàmbali waxtaan bi parce que tey euh, waxtu bi comme je l'ai dit dafa constipé. Mhm. donc euh, Abdal ma gis ni plateau dafa xew taay waaw dafa xew léegi plateau boo xamante ni dafa ànd ak ay jeux de lumière yi. donc yii fan nga koy teg ak pour lan la. waaw mun naa xam plateau bi nii lii dafa rafet. di mm-hmm. tey rek euh, nga teg ko si biir néeg sa kaw coiffeuse. Mm-hmm. taal jeux de lumière yi nii defal sa néeg décoré ko mm-hmm. ba seet dafa bokk ci jaamu yàlla daal. dëgg la te dëgg neexul lii lay dundal xol. am na te plateau yi sa moroomu nawle bu dugg si biir néeg bu fekkee muy tàkk ah dana la xool xool la daal. day jox yàlla boo nii. waaw ay ñoom curoxo curoxo xeetu baax baax yi nii ay ñoom salade bi jël ko teg ko taal ko rek toog jàpp sa ñaambur sa moroomu jëb bu dugg si biir néeg dana toogaat xoolaat barke yonent bi ndax plateau dafa nekk loo xam ne si nii day dundal néeg daal day dundal néeg waaw mu mel ko parce que bu fekkee di ak jeu de yi boo ko jëlee teg ko ci sa sa kamoot donc loolu mun na éclairer waa mun na éclairer kaw lal lay nekk waaw li la xadi donc njëgënaay la boo xamante ni cœur la ba pare dañ ko liggéey comme genre lèvre comme si macha allah xale lèvre bi nga doon moo tax nga nga nga nga yem ci bi ay décor la yoo xamante ni euh, jeeg gi dafay baax ñu jël ko di ko teg seen biir néeg yi parce que dafa nekk loo xamante ni lu lu am solo la ci biir néeg donc lépp lu ñuy def pour bégal suñu jëkkër yi lépp lu ñuy def pour dab seen bànneex rek ci ci néeg bi mhm. euh, nañ ko jéem kenn mënul yàlla borom subhaanahu wa taala rek moom moo mën mm-hmm. mais li nga xamante ni am na yaa di mieux mm-hmm. ñu def kon li nga xamante ni euh, donc da i ndigal moytu seen i tere ñu di békk Abdel dafa am ñoo xamante ni du ñu takk ay fer yu ngand donc dafa am ñoo xamante ni dañoo xaw a toppandoo tubaab yi tuuti di tubaab tubaab yi waaw waaw tubaab ñuul yi donc dafa mel ni ñoom bu ñuy takk genre cristal yu sew yi moom la ñuy takk ci seen digg mais à yi ba fekkee ni da nga nit ku ndaw nga taay fit nga yi nga war a takk wala yu mag yi nga war a takk Abdel xam nga tey nii fer nekkul ci ni ndaw wala ni ko mag daal tey jii gis nga fer yooyu noonu loolu ay wursu ngaram laa ko tuddee fer dafa nekk loo xam ne si tamit day iri sa borom kër li xale yi naan iri day xëcc sa borom kër waaw ci ñu nag doy na borom kër waaw wax ñu yegg dafa ko moom nii fer yi rek nga takk ko sa ndigg wala nga ñu ko sawal bopp lal waaw mais Abdel chaîne bi may gis nii pour lan la. waaw chaîne boobu nag tur loolu tur la. dëgg loolu chaîne boobu rek nga téye ko yow rek nga takk ko. lii sa sa yàlla boo ko ci sa waay ba mu ñëw nga ne ko téel ma mu dëgg la boobaa ko laaj ci guddi gi. ba pare benn secret bu ci nekk. gis nga chaîne bi bu fekkee da nga am yor say bagu glace rek. def ko ci ba mu sedd guy. bu 2 heures du matin jotee jàpp 3 heures mën nga ko jaaral ci yaram bi rek mu mel ni serpent ci biir yaram. lii daal yàlla dogal na ko ci chaîne dëgg. fer fer gee nga gis boo ko xoojee ci ndox bu sedd ba te ko sa kaw dana yooxu yu bi xam nga laajte mhm. ne la may naa la kayitu kër yàlla nañu yàlla may kayitu kër. may ko sama rakk yi nag dëgg neexul ndax mérito nañ ko bëgg naa ñu am ko. waaw dëgg neexul mais est que jigéen bu baax du gën a ñi nga xamante ni dañoo bëri salañ salañ est-ce que du maa xam nga ni jéeg dafa war a takk ay fer ci biir néegam. diggu kese baaxul mais jeg boo xam ne si foo làmbee ndiggam doo fa fekk dara loolu ay téere dëgg la loolu amul sens yàlla ci yàlla musal <laughs> di xasaat yàlla musal ci loolu di xasaat di xasaat mhm. di na mbër muy bëri <laughs> jigéen da ngay pare sa jëkkëru maa la xamal mais est yoon la euh, jigéen surtout femme mariée ak même célibataire ya ah, dañuy da ngay gis ñoo xamante ne foo toll fuñ la rombee rek fer ñu ngi ñu ngi def bruit loolu également est-ce que en journée wala moment bu ci mënti nekk bu ñu la rombee daal foog bruit fer di. mais tey jii ku nekk sa bëgg-bëgg mais jigéen bu pare daal jigéen bu pare si yoon boo ne koo jàkk xam ko xam nga ne menace mi boo ne koo jàkk <clears throat> xam ne kii ko pare la. barki sama jëkkëru maam naxuma la. Ah. mais dama ne la tey jii dañoo nekk ci nawet. te nawet bi nag ah lu koy faj. Mm. yéen koy faj xeetu baax baax yi. d'accord yu neex yi. Mm-hmm. waaw euh, gamme bi dafa am parfum euh, ku ci nekk dafa am partie yoo xamante ni bu ci nekk ak parfum bi fay dem euh, léegi gamme bi pour loolu moo ko tax a jóg wala. waaw gamme bi looloo ko tax a jóg gamme bi nag lii dama ko indi tey wàccee lu sax waaw ndax lii nii boo gisee parfum VIP la lii parfum de corps bi si topp parfum huile la parfum huile nga koo dugal sa saak tey mu ngi mel ngay dem tey émission wala ngay dem tey xew foo mënti dem boo jubee say xarit say doomu ndey ndax nit ku baax du ñàkk ay noonu nga laal say roq-roqaan les quatre point quatre di noonu dëgg neexul ne xoolal foo toog day sàjji day wax barke yonent bi day nettali loolu parfois de chambre la loolu nga gis. ah day nettali. day nettali di wax. ok ah. <laughs> maanaam lan moo ko lan moo ko tax a jóg plateau bi. waaw la. Mhm. kooku caat la. macha allah kooku yaa jël rek. ah ñun kooku man nga ciy denc say xeetu bagage. yoo xam ne sa waay du ko gis. déedéet des fois ko ne ko am maa la ko jox cadeau. bëgg naa xale bu jigéen buy préparer surprise pour jëkkëram. jeex na seen ñuy góorgóorlu ci seen i partenaires yi. donc dafa mel ne tey nag rosa bi andi woo li nga xamante ni nee naa leen kaw dafa am rosa lèvre ci suuf tam dafa am rosa lèvre. waaw àdduna amul loo fi gis day jeex te comme te comme lu ñu bëggal lu bëggal suñu jëkkër yi rek la ñuy wut buñ ci daw dara. loo xamul lay jeex boo ci nekkee neex moo tax man duma takk fer yow waroo ko wax defal li sa jëkkër bëgg bu dee dangaa bëgg a jur doom ju baax rek ngay tarbiyo lii du ay fo toujours ñun ci aada ak cosaan dañuy xamal ñu ne jeeg boo xasee ba dugg sa biir néegu sëy boo xasee ba am doom rek waratoo def ndiggu toog ndiggu ndiggu kese mooy maanaam ku dul takk fer doo def dara donte da nga bëgg a sax yow mbubboo ni tubaab nga am nga droit wut ay cristal yu sew donte benn la nga takk ko sa ndigg boo ko mënul boo ko bëggul bu fekkee mën nga jël chaîne ndigg bi nga sànni ko ci sa ndigg sa ba tey charme la ça dépend ci sa partenaire selon sa partenaire bëgg euh, bul xool li nga bëgg yow xoolal li nga xamante ni sa partenaire moom la bëgg te mooy bëggal sa jëkkër donc nga nga def ko li gën daal ñuy ñuy topp ndigal ci suñu borom kër yi kenn mënul na kenn matalewul mais dañuy jéem Abdel dañuy jéem mais njëgënaay yi pour lan la njëgënaay su rouge boobu noonu waaw lu bari loolu garaaw la boo xool ne jëmm ji fële la lay jox wala jaxute mais njëgënaay bi day tàkk nga day tàkk te kanam gi nii joxute lañ koo kiyee da ngay seet xam nga rek Baye ah. moom dafa pare moom sóoru maam say. mais ànd yi euh, am ànd boo xamante ni moom importé la mun nga ko def sa sax saak foo mënti dem boo ñëwee lu mel ni fii petit déj nga daal ko fi. yàqul dara dëgg la moo nekk ànd serment boobu mel na genre coupe. dëgg la waaw ànd serment boobu. Mhm. tey bi foo mënti dem bu la neexee. mën koo indaal ci plateau bi. dëgg la def toq cuuraay xam maa génnee cuuraay bi di curoxo curoxo. bu bees sànq moom laa génnee curoxo curoxo. moom bokkul te indiw ma ko. Mhm. ndax sans cuuraay yi dama dama dama dañ ma ciy bëgg a rey temps yi. lii sans cuuraay yi day comme soosu kaane. tey nag damaa indi curoxo curoxo bi. Mhm. xale bu bu ci paree nag yàlla ñu nee buy taw ah. dégg la waaw ah. te tamit taw bi bu tawee foog néegi guus. néegi day guus appartement yi guus yooyu ci génne foog nga am parfum de chambre yi nga am yu baax yi. Mhm. ak cuuraayu curux curux yi saalaat bi. dëgg mais par rapport à ami bi parce que enfin ni mu tuutee nii j'imagine que du charbon moom moo koy taal dañu koy branché wala dañ koy chargé wala batterie la ou comment ça se passe. non charbon la taal naa ko léegi ko su ma sóoru ci. ah course course suuru ah, na ah, est-ce que est-ce que est-ce que du ma ci may sa tànday mbay tànday mbay il faut mu am ci ah. benn parce que nag xam naa mi ngi ko doon teeru comme moom nekku fi woon course l'international comme nekku fi woon moom xam naa il faut ñu lu ñàkk luñ ko préparer pour jox ko mu waaw mu ko ciy bëggal ànd bii nii bu dii nii ànd bii nii mooy xar mu mag yow ànd boobu noonu ngay gis déedéet kay mooy ànd branchement bi nii ci sa xarit du ma du jottali ànd bi sama sama xale lèvre waa ah waaw mi ngi noonu gisoo loolu dafa ñu xarit bu abi bi seet lii rek waaw nuroo naag moom dafa des. charbon bi moom moo nekk ci biir voilà. charbon baa ngi nii. Mm-hmm. day nettali. donc cha. charbon baa nekk nii cuuraay bi moom moo takk fii mais bon. charbon moom ngay teg ci bi rek. voilà tàngaay bi li dafa neexati si tàngaay bi. sa biir ngay jël laal naa nga teg. teg xam nga Issa kenn bi léegi am na jigéen ñoo xam ne ñoo taayal. d' accord dañuy taayal di booy la lii. d' accord léegi dañ leen koo wàcc dañ leen koo wàcceel xam nga rek. léegi kii bi dafa ànd ak commande am. waaw loolu lampe bees la kër bi la. mu mel bu bees tàq. dafa am place su tamit. am bultuuf. waaw. tey jii nii des fois nga ub seen néeg wàcce seen rido. Mhm. kenn jëlatul rajo. bi lampe yi génne ba léegi rajo yëpp dañu koo éliminer ci néegi. dëgg la kii day tàkk ay couleurs yu bari. macha allah. yaa xool su soo bëggee bu la neex yaa sa waay. nga teg ko dëgg neexul. waa dañ ko fay bëgg a xeelil xeewil te du ma ko nangoo. Euh, jéeg bu baax néegam da mën ngay am benn son boo xamante ni da ciy génn ci kaw nag nga am lampe boo xamante ni du leer yaa xamante ni aubergine lay doon wala rouge danger bi nga xam mm-hmm. euh, a ñooy suñuy borom kër bu dara sedd Jérusalem gi daa war di mettre sur 4 sur 24 donc na xoli di sedd daal xoli daa war di liw te ñu ngi dëgmal li nga xamante ni moom mooy nawet te dañoo war di yëkkati nag matelas yi di ko yóbbante naaj bi mm-hmm. euh, di jël ay yi nga xamante poudre gawe la di ko sotti ci biir donc poudre gowe bi ñu koy boole ay quarité di ci maasé yi nga xamante ni ñoom ñooy suñu ay borom kër donc loolu c'est très important que waxtu bi malheureusement xot nañu euh, coach amul loo ci sànni euh. d'accord <laughs> euh, Abdel ñu ngi lay jaajëfal bu baax maa ngi leen sant bu wér di sant Khadija Mounass ñu ma bokkal yëpp di sant nag Euh, sama xarit yëpp ak sama client yi. Mhm. ak sama mbokk taalibe yëpp. di sant Ilimaan mhm. borom wakaam borom benn tali. Mhm. dëgg neexul moo ma jox te yéene ma solal. defal lu la neex lii ma sol moo ma fuyal daal. macha allah barke yonent bi di sant nag waa nguma ngiwul gépp sama yaay xaritu Abdali góor yàlla yëpp. maa ngi leen di sant sama client yi sama mag yi yow itam ñu ngi lay a baax. Ah, merci li nga xamante ne moom la indi tey Arsenal comme bu bu venez tout soxla